foo gaañu. mais na jóg ñu fubal. ñun bu demee ci dëkk dafa ñu woon lii woo gën a laaju ma la dëgg la. ma wuy ma déglu ma rek na jóg ñu fubal non déglu ma rek. voilà déglu ma maa la ko ñaan bàyyi dinaa wax ak moom. eh jugal nga génn. Ah, non dama def nànk sama daal laay soo génn ci biti. non jugal rek dama def nànk jugal. jugal génn ci biti jugal bu ma benn problème voilà. <laughs> muñal dégg nga muñal tëddal mais mais xanaa sa biir bi mm-hmm. moom kay Sadio wax la yi boog lu ma si man xoola fee lajëri laaj ma la ko <laughs> naan mooy pays de la teranga hmm, loolu am na mais ah <laughs>